mooy gis ne réew mi dañu bëgg mu naat naataange bu sax naataange bu sax nag ay nit ñu xarañte maanu ñoo koy joxe ñu nit ñu xarañte maanu nag bu ñu jàngul amuñu wér-gu-yaram duñu ko am loolooy suñu programme ñu bëgg a tabax senegal waaye senegal yàqu na yàqu boo xam ne balaa nga koo tabax danga koy jagal ba pare ba nga xam ne lépp loo xam ne les réew mi am na ko ci alal ñëpp mun cee ba pare na nga tabax fexe ba jàng bi kenn du fay dërëm ci jàng ba ba ngay am ñaar fukki at ak juróom juróom ñetti junni milliards la teg kenn dootul fay dërëm pour jàng doom wér gu yaram dinañ fa teg junniy milliards at mu nekk at mu nekk junniy milliards ba mu mot juróomi at département bu nekk ñu def fa polyclinique ñu def ay oto yoo xam ne day am hôpital ci biir muy dem ci dëkk Dakar di dem ci village yi ñëpp ñi nga xam ne xarañu loxo lañuy liggéey artisanat ñii di ñaw ñii di ñii di nekk cordonnier ñëpp dinañ leen defal fonds boo xam ne trois cent cinquante milliards di lebal ñuy jën machine di lebal ñuy liggéey parce que fii ay nit ñu diñ ñoo fi nekk ay nit ñu mën a liggéey surtout nag jigéen ñi jigéen ñi dinañu fexe ba seen entreprise yi lépp lu état di séddale ci liggéey ñu jël ci cent maanaam bu dee téeméer la ñu jël fukki yeeg ak juróom jox leen ko ñu liggéey mën a am du ñuy soxandiku. jeunes yaa ngi dem ci géej gi dinañu fexe ba kenn dootul dem ci géej gi ci anam yi ñu demee lépp képp kuy dugalati sax xaalis Sénégal di fi am marché di nga joxe ay visa pour xale yi dem dinañ leen defal ay promotion ñu def transformation industrielle xale yi mën a am liggéey. kon nag réew mi dama bëgg ngeen xam ne politik du caaxaan réew mi dañ ko sàggane li ci gën a bon nag mooy luubal bi ñuy def jël alalu réew mi luubal ko jox ko sa njaboot wala da jël ko rawale ko bitim réew bàyyi doomu réew mi amuñu lu ñu dundee loolu moo tax ñu dugg ci politique élection yi ñuy jëm tànn bi barewul de du élection boo xam ne da naan man kii laa tippoo wala kële moo da ngeen di xool kan moo am jaar-jaar bu war tax mu mun a defar réew mi ubbi tey liggéey tey waa ma ne kan la ma ne bu dee du man ngeen wax ma ko ma bàyyi bu dee du man ngeen wax ma ko ma reeri tëddi bu dee man la nag xam nga lan la bëgg coow li jeex na ma ne kamaa si na ñi doon labbi labbi yëpp ñëppay xaar.